asalaamaaleykum mbokki jullit yi asalaamaaleykum mbokki taalibe yi asalaamaaleykum mbokki Sénégal bismi xalifati alaam li tariqati alqaadiriya cheikh bu sidil muxtaar il kunti ayyadahu llah wa nasara ci kàddu cheikh bu sidil muxtaar xalif général des qaadir mu jaarale ko ci sunu jëmm yi ñu ànd ko njabootam gi yëpp mooy joxe ndigal di woote bisu boppam muy bisu gàmmu Njaasaan di bisu juróom-ñaareel ginnaaw ganek àdduna ngën gi mbindeef sallallahu alayhi wa ku ne xam na ni sallallahu alayhi wa sallam sunnaa na ngénte waaye moom jëmmam jooju Abdul Muttalib di maamam di wajuru Abdullahi defaloon na ko ko Abdul Muttalib ci wàllu taarix moo bokk ak ahlul kunti yi bi jihatil ab ci côté wajur wu góor sallallahu alayhi wa di maami cheikh na cheikh Abdul Qadir Jeylaani mi maami cheikh bu Mohammed Kunta di maami cheikh bu Naama Kunta mi ñëw Sénégal ci wàllu wajur wu jigéen kunta am ñaari cër ci bokkak yenent bi ci côté wajuru góor ci côté wajuru jigéen am sañ-sañu dundal sunna soosu kunta ba ñu sosoo ba sunu jonn yàlla saa bu ngénte li jotee di bisub juróom-ñaareel bi ci juddug yenent bi sallallahu alayhi wa ñoom ñëpp ñu dajaloo sunnaal ko loolu la cheikh bu sidil muxtaaril kunti yi di dundal di ci woo ñi mu bokkal seydina muhammad yëpp mooy ay mbokki boppam di ndànk mi nga xam ni fa la bu muhammad kunta sosoo ak ñi bokk ak cheikh bu muhammad kunta cheikh bu naama kunta di sanc buuna di ndeer di guyat ak mboole seen dëkk kunte yi nga xam ni ñi ngi ci réew mi yëpp di woo képp ku naan ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di si jiital ci woote boobu ñi mu bokkal diine ji te koy taxaw te ñoom ñëpp seen maam yi nekkoon ay keno ci diine nekkoon ay jëwriñ ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di képp bu tëkk ci ab dëkk ab kilifa diine nekk fa boo nee Tiwaawan alxaaj sëriñ Babacar si almansour jiite njaboot ga ne sëriñ baa ngi koy ziar di ko ndokkeel ci taxawu gim ko taxawul juddug maamam bërki démb ca Tiwaawan ak mboole seen njabootu sel xaaju Maalik si di woo di ndokkeel di ziar Cheikh Mouhamadul Muntaka ci li mu jóge di safar bi mu taxawu taxawul leen ko ñoom ñëpp taxawul ko umma islam bi ngi koy ziar di ko ndokkeel di ko ñaanal di woo alxaaj Cheikh Ibrahim euh, Cheikh Tidiane Niass ca Léona ak xalifa Medina di xalifatu Cheikh Ibrahima di sëriñ Maaxi Niass dëkk ci kër gi ci taxawu gi mu taxawu bërki démb ca kaw lag gàmm gu am solo gi nga xam ne def na ko fa ak mbokkam mi nga xam ni du fi jóg xelam xalaatam ak kàddoom yu rafet di Xasan Seck di sëriñ Xasan Seck xalif général de Thiénaba alxaaji Mouhamed Sakhir Njëgéen bu kër sunu kër maam alaaji Njëgéen waa Amdullahi suñu waa kër maam Abdou Cissé waa Fass Touré waa ahlullaahi suñu waa kër maam limaamullaahi ak mboole seen réew mi ñu dëkke Casamance di waa Daari Salaam ak njabootu ahlul kunti yi ya fa nekk ak mboole seen ahlu jaaxanke yi nga xam ni ci ahlul kunti yi la aju kon mi ngi woo islam bi yëpp di woo diina ji yëpp di wax ni édition bi ñu jëm muy xew-xew bii cheikh bu Mouhamed Kunta mi ngi ko doon ne ci wajuram cheikh bu Naama Kunta Cheikh Bouna Ama Kounta 1800 la fi ñëw 1808 9 ci la sanc ndànk kajoor muy ndànk naar di 7 kilomètres diggante ma ngay mexe Cheikh al di taawu Cheikh Bouna Ama moo njëkk a gàmm ca ndànk wuutu woon wajuram ba Cheikh Bouna Ama ñu di ko doxal ba Cheikh xalifa ñëw di ko def ba Cheikh Sidil Muxtaar mu Cheikh Bouna Ama di ko def ba cheikh bu Mouhamed Kounta mii donn ko ci ñoom di ko def kon bii dañ naan cent quarante et un édition waaye déedéet ëpp na ko waaye fii ci Njaasaan ren mooy téeméer ak ñeen fukk ak benn di gàmm bu ñuy gàmm kon yaakaar naa ni bu ñu amee lecture ahlul kunti yi bi ñuy gàmm gàmm kenn taxawalu ko ko fii ci réew mi mi ngi woo ñëpp ci bis boobu Euh, di woo képp koo xam ni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk na lu toll ni tarfatul ayni ci sax xol bi te loolu boo koy wax ci Sénégal doo ci fàtte mukk ñi nga xam ni ñooy waa kër sunu maam Cheikh Omar Foutiou Tall nga xam ne am na taxawaay bu dëgg ci diine lislaam doonoon mujahidul akbar di woo sunu mbokki bopp yi nga xam ne it sunuy doomi bàjjan lañ ñu bokk ak ñoom tariqatul qaadiriya di ahlu Cheikh Mouhamad al Fadal Haydara kër gi seen kër la dëkk bi seen dëkk la mbokk gi benn la ndax gàmmukat yàllaa ko njëkk defal yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax annabiyu awlaa bil muminina min anfusihim yenent bi moo gën a yey ci jullit ñi ci seeni bakkan ki gën a yey ci yow ci sa bakkan nag bu ñu koy wooteel loo xamante ne si ni dañuy fësal sunu cofeel ak sunu mbégte ci moom comme na ko cheikh mouhamadal buuna kunta waxee jaa sururu wal marax wan zaaxa kawkabul tarax isbaana jaylamul farax an unsurin mutaharin jaa sururu wal marax googu nag ci lañu nekk di ci di ci di ci góorgóorlu ngir wane ni bis boobu kat lépp luñ ko jàngal ci alquran ndax kat alquran mooy dustuurul ëwal waaye lépp luñ ko mën a defal ci salaatu ala nabi salaatu ala nabi mooy li nga xam ni moom la yàlla fay direct te du ci fay bor te du ci jël bor moom salaatu ala nabi jëf ju nit def yàlla mën na cee fay bor ci jëf ju baax jooju wala jëf ju nit def yàlla mën na cee fay bor ci koo tooñoon waaye salaatu ala nabi yàlla da koy bàyyee képp ku koy def te bis boobu li ci gën a fés te gën cee màgg mooy sunu cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñuy salawaat jëmale ci moom ak lépp loo xam ni xeetu xam-xam la si ndigalu sëriñ bi commission scientifique bi méngoo nañ ci njiital oustaz Mohamed Babu ak ñi ko àndal ñëpp ci thème bu am solo thème boobu nga xam ni buñ ci yemee mën naa defar sunu àdduna mën naa defar sunu àllaaxira ndax te mu alquran la yàlla wax ko wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ithmi wal udwan nañu dimbalante ci lu baax ci biir ak ci maytu di dimbalante ci safaan la tax sunu borom bi wax ko nag taawun la indi indi ismu indi udwan waaye kenn dañ naan kan mooy dimbalante kenn mooy dimbalante ci safaan ankay dimbalante ci safaan moo xew ci réew mi ndax nit dina nekk di def safaan nga war koo dimbali mu génn si nga gën ko ci encouragé wax safaan xalaat safaan jëf safaan ay nit ñi ngi ciy dimbalante loolu lañu yàlla tere moo tax sëriñ bi joxe ndigal ni tem boobu nañ ci waxtaan dimbalante ci lu baax nag muy nit bu nekkee ci yoon wu baax dañ koy dimbali ci lépp nag ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na unzur aqaaka zaliman aw mazluman kon nit ku ne am na ndimbal bu ñu lay dimbali ci ñaari fànn yëpp loolu waral thème boobu sëriñ bi joxe ndigal ngir ñu waxtaane ko commencé nañ ko nag depuis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna di dimanche bi passé mu gane àdduna ba tey Ndiassane mi ngi gàmm ñi traité thème bi fii si jumay Ndiassane ju mag ji ci rawdu Cheikh bu Mouhamed Kounta bi di ci waxtaane thème boobu difa def ay salaatu ala nabi di woo nag ak jaaru xabla daar dëkkandoo lu am solo la gàmmu Njaasaan du gàmmu Njaasaan gàmmu commune Chérif yëpp la waaye gàmmu village yi nga xam ne dañoo dëkkoon ak Cheikh bu Mouhamed Kounta dëkkin bu rafet tey ñu dem ba village yooyu Njaasaan mëdd ko mu bokk ci biir Njaasaan doon ay quartier sëriñ baa ngi leen di tàllal loxo ci lépp luy yéwénal gàmmu gi ci dalal gan yi ci yaatal kanam yi ci bale kër yi ci nekk ci service su gan yi ndax kii ñuy gàmmul kat di sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ki gën ci nit ñi mooy ki nga xam ni moo leen di liggéeyal kon nag li ñu sunu borom bi dikk moo tax cheikh bu Mouhamed Kunta mii nekk ci biir di cheikh bu si Moxtaar di xalifatul am di tariqatil qaadiriya bëgg a woo jullit ñépp ci lan ci inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiran li tuminu billahi wa tuaziruhu wa tuwaqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila yàlla moo yónni yenent bi shahidan bil haqq wa mubashiran lil muminina wa nadiran lil kafirina kon bis tey bi bis bu màgg la ci islam umma islam waaye bis bu mag la ci ahlul kunti yi kon sëriñ bi mu ngi ñaan képp kuy ñëw na sa yéene sell ndax am niyatu qabla al amal nit na am yéene laata muy jëf yéene ji nag mooy ñu yaraat sunu bopp xam ne yenent bi lañuy seeti kuy seeti yenent bi nag sallallahu alayhi wa sallam orma booy ormaal sa kilifa bi la meññi di sa wajur wu góor ak sa wajur wu jigéen ndax wa qada rabbuka allaa taabudu illa iya wa bil walidayni ihsana waaye nag bëgg yàlla moo gën a raw bëgg wajur waaye bëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo gën a raw bëgg wajur bëgg sëriñ hmm. sëriñ boo mënti yaakaar ci kaw suuf yenente bi mooy sëriñam hmm. kon bu ñuy seeti yenente bi di dem ci kër yenente bi di gàmmuli yenente bi nañu ànd ak yar chauffeur si sëriñ bi nee na nañu daw ndànk hmm. ndax jàmm ci la rëpp xaj te jàmm jooju mooy lan mooy jiital yar jiital dal jiital teggin ndax jàmm mën a wàcc ndax bëri na luy dal nit ñu naan dogalu yàlla la déedéet ndax yàlla nee na bëri na loo xam ne da leen di dal ci ay musiba bi maa kasabat la wax ca la ngeen fàggul la seen bopp yàlla taxawul pour sàkk jaam yi ba pare di leen fitnaal ndax daf ñoo teral wala xadd karam naa ba ni aadama kon nañ leen na chauffeur si sédd yàlla cër ci li ñuy dawal jëm Ndiassane di indi pèlerin yi ndax ñu mën ñëw ci jàmm dellu ci jàmm hmm. euh, cérémonie officielle bi nga xam ni saa su nekk daan nañ ko taxawu mu doon ginnaaw tàkkusaan sëriñ bi natt ni diggante tàkkusaan ak timis dafa xat te nag bokk na ci faratey julli an niyatu yéene ja nga yéene ni maa ngi julli waxtu wi waaye ne at tuma niina wal i'tidaal te mu gis ni tumaaniina ak eh, i'tidaal googu ci diggante takkusaan ak timis ñu ni timis jot na nañu arrêté cérémonie bi xëy na dal googu ak tey googu du ci am moo tax ren mu joxe ndigal ni cérémonie officielle bi ñu ngi koy def dix heures ci suba ba une ndax nit ñi mën a nekk ci ak dal kon mi ngi woo mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp gàmmu Ndiassane dimanche la le vingt deux septembre incha allahu tolloog fukki fan ak juróom-ñett ci weeru gàmm waaye sëriñ baa ngi joxe ndigal ngir ñun ñëpp euh, ñu ñëw fanaan si ci samedi si ndax ñu mën a teel a xëy commencé ci euh, euh, liggéey bi ba tax na njabootu presse bi ci njiital Ousmane Gueye ci njiital Ousmane géey mi ngi leen di jaajëfal di leen sant bu baax a baax a baax a baax ndax euh, liggéey bi ku ne xam na ni yombul ba tax na euh, bari na loo xam ni waroon naa nekk ci njëlbeen ga waaye li tax mu xaw a am tardement ñu koy jéggalu bu baax a baax a baax ci sama tur di ko jaarale ci Cheikh al Bekaay mi jëwriñu kër gi ndax ñun ñii nekk ci wetu sëriñ bi xam nañ ni bi weeru gàmmu teroo yendalu ñu fanaanuñu comité presse bi njatt nañ ñu ay yoon ngir ngir ñu jàllale li nga xam ne mooy déclaration bi waaye toog benn bis boo xam ne nekkuñu ci ay urgence moo amul woon ba tax na déclaration bi mel ni lu xaw a yéex waaye rien na jamais trop tard dara du wees kon Euh, euh, euh, lépp loo xamante si ni waajal nañ ko ngir gàmmu gi muy communication muy lu ñu bëgg mu jàll lépp yéen ci seen loxo lay jaar muy commité de presse bi ñuy jéggalu itam léeg-léeg bu ngeen ñëwee xataayu xataayu press bi nga xamante si nii ak condition yi nga xamante si nii ci la presse di nekkee fii ci Ndiassane sunu yéene mooy presse bi nekk ci ay suite présidentielle ba keroog ñu dem waaye nag lu baax mooy yombul ndax ku ne xam na ni li gën a metti ci farata yi mooy aj màkka te aj màkka yàlla rek lañ ciy wut dem nañ ba ñu sunna boo dee dem juma yoon wa nga jaare booy waññeeku jaareel beneen yoon ndax jéego ya ngay dox yool ba gën a bari kon coono gi ngeen fii daj yëpp yiw ak seentu leeru yonent bi sallallahu wa sallam rek la ñu jàpp ni mën ngeen ñu koo jéggal ci xataay yooyu te xam ne du suñu yéene suñu yéene mooy ngeen nekk ci les meilleures conditions te incha allahu euh, comité bi nga xamante ni mooy comité d'organisation bi ci njiital alaaji Mamadou Kunta di coordonnateur bi ak Serigne Ousmane Gueye mii nga xamante si ni moom mooy président commission bi yor wàllu presse bi ñu ngi ciy xalaat fii ak déwén allah lépp jàpp nañ ni ci barke Serigne bi nekk ci biir di xalif général bi di Cheikh Ousseynou Mokhtar yàlla dina ko jàppale kon Serigne bi mi ngi woo ay rakkam yëpp nag commencé ci kër Cheikh al Bekaay mii taawu Cheikh bu Kunta ba ci Cheikh bu Mouhamed Kunta mii caatu Cheikh bu Kunta ginnaaw bi mu wooyee mbokkam yi mi ngi woo ñëpp ñoo xam ne aju nañ ci ëllëg Kunta yu ngir ñu ñëw teerale ko ay ganam terale ko ay ganam jàppale ko ci bis bii nga xam ne amul lu dul moom. muy bisu Seydina Muhammad sallallahu bi bokkoon na ci ay recommandation tabala sunna la ji'u bi adadin wa madadin wa tubuluhum hunaka tuula amadi tabala sunu moomeel la ñun ahlul kunti waaye tabala sunu moomeel la ñun tariqatul qadiriya waaye waxuñu ay xiin waxuñu ay mbëmbës ay tabala lañ wax sëriñ bi joxe na ndigal ak comité d'organisation bi ak ñi nga xam ne ñoo yor sécurité bi ak agent de sécurité yi fiy ñëw ci bépp kër goo xam ne ña nga fa nekk di sabaru di tëgg ay batari yoo xam ni mi nga wut ak tariqa bi mi nga kër gi bu boobaa nag falaa talumuunii wa luumu anfusakum bu kenn yedd ña fa ñëw nañ yedd seen bopp ndax sëriñ bi àdduna àdduwaat àdduwaat ba àddu ko ci kanamu presse bi yëpp ñépp di ñëw kuy ñëw Njaasaan da ngay indaale tabala kon ñu ngi ñaan gàmm gii ñu jëm yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm eh, ñu dugg ci ci bismillahi rahmaani rahim te génn ci ci alhamdulillahi rabbil alamin ci ñaan képp koo xamante si ni ñëw nga fi yàlla faj sa aajo ndax eh, eh, gàmmu amul benn benn benn benn benn li naan li tubaab naan feedback luy dellu siwaat ci ci ci ci ci ci ci sëriñ bi wala liy dellu siwaat ci pèlerin yi gàmmu si lu dul leeru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul leeru yenente bi sallallahu alayhi te nekk nañ jamono joo xam ni jamono ju lëndëm la jamono ju doy la alal bari na développement am na waaye barke ngi gën a wàññeeku lu nit nekk rek te amu ci barke amu ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu sotti dana jafe kon sëriñ bi daal mi ngi joxe ndigal ci képp ku fi ñëw muy góor muy jigéen ndax jàpp nañ ni Njaasaan du ay taalibe xaadir ñoo fay dem rek Njaasaan umma islam ñoo fay daje ndax gàmm sous région bi la itam ndax malien yi nga xamante si ni ñooy premier compagnon du cheikh bu Mohammed Kunta mm-hmm. ay junni junni malien ñooy ñëw tàbbisi si dëkk bi sëriñ bi di ñaan ñu yaatal leen ci yoon wi gambien yi nga xam ni ñooy chance su cheikh bu Mohamed Kunta ndax cheikh bu Mohamed Kunta benn yoon la mës a génn réew mi te gàmbi la nekkoon nekk fa alfu lay la di fa jaamu yàlla am fa njaboot gu yaatoo yaato yaatoo cheikh bu Mohamed Kunta jaar na ci liñ naan island d'esclave d'esclave di île d'esclave bi nekk diggante gàmbi ak Guinée dem ci Guinée am foofu njaboot itam am Burkina Faso njaboot am Mauritanie njaboot te ñu ñi ñëpp dañoo bokk si gàmm gi di di rot si fii Ndiassane mm-hmm. kon ñi ngi ñaan nañu rafetal col gi mm-hmm. jigéen ñi nañu rafetal col gi ndax du ñu dundal sunna ba pare di roy di sunna mm-hmm. te col gu yiw du sunna farata la ndax sunu borom bi subhaanahu wa taala moo wax yeneen bi ni ko waxal say njaboot ak jigéenu julli ñi yut niina alayhinna la lawa ci seen maanaam jàll nañuy sol lu yiw loo xamante sini seen cër du feeñ te almaratu kulluha awra maa adal wëj wal kaf kon buñ la bàyyee toloore ngir ni réew mi tëddee ak adduna toll nga sol sol gu yiw goo xam ni du excité góor ñi ba tentation lu ñaaw di am ci foofu waaye dëkk bi nag dëkku orma naka ngay ñëwee dëkk Cheikh bu Mouhamed Kounta bëgg a sol loo xam ne yaa ngi mel ni ku war a dem ci dancing ba loolu c'est inacceptable sëriñ bi joxe na ci ay ndigal ci force d'ordre bi ak soldaaru Cheikh bu Mouhamed Kounta yi ak jamaa bi ñu saytu loolu jigéen buy ñëw boo mënta sol lu yiw sëriñ bi jéggal na la gàmmu gi nga toog sa kër gàmmoo kon daal euh, sëriñ baa ngi ñaan yàlla nañ ci dugg ak bismillahi rahmaani rahim te yeggali kook alhamdulilahi rabil alamin euh, wax ni suba incha allahu mhm. ci alxames ji mi ngi leen di yëgal ni doomam di président de la république mhm. nee na ko da koy gane si mhm. muy woowaa dëkk bi yëpp ci dal ak yar ak teggit ndax man kaana yuminu billahi wala yawmil axir fal yukrim dayfa te gan gu tol ni président gan la niñ ko mën a terale mooy jox ko sunu xol leeral ko sunu kanam ànd ak dal yar ak teggin ngir ñu teral ko teraanga gi sëriñ bi bëgg kon loolu daal moo doon loolu moo doon kàddu yi mm-hmm. eh, di ñaan di ñaan mm-hmm. réew mi yàlla fi jàmm wàcc cheikh bu sidd muxtaari kunti yi mm-hmm. yéeneem ak yitteem ak bëgg-bëggam ak xalaatam yépp Sénégal la ndax cosaanam azawaat la waaye Sénégal gii kat fi ko lépp fekk Sénégal gii le cheikh sidil muxtaaril kunti yu xooloon yàlla wan ko ko mu wan ko cheikh bun ama kunta mu ñëw fii kon sunu lépp sénégal la sénégal yàlla na fi jàmm sax nawet bii ñu dugg yàlla na ko yàlla barkeel lii xew ci réew mi di ay ñaaw téefa ki ay accident ay rayek lu ne yàlla mi mën a saafara yàlla nañ yàlla saafaraal loolu tënkal ñu seytaane ba loolu mën a jeex ci sunu réew wasalaamaaleykum wa rahmatullah